africain bu ñu jagleel wàllum industrie culturelle ak créative nekk gis-gis bu bees bu fondation Youssou Ndour moomee nag dina jàppale ndaw ñi ngir ñu mën a ubbeeku jëm ci wàllum liggéey lépp nag jaarale ko ci seen ay création lu jëm ci wàllum culture ak créativité. ah on estime qu'il environ cinquante d'emplois dans le monde. ñu jàpp daal am na cinquante millions d'emplois ci euh, àdduna bi yëpp te loolu sax ci secteur boobu la gën a soxal te dañ koy tollal rek ci euh, téeméer boo jël ñett yu nga xam ne moo toll ci euh, richesse mondiale te loolu dafay représenté li nga xam ne mooy rek 6 euh, cent ci nga xam ne mooy PIB mondial te loolu tamit war nañ koo gën a mën a suuxat te loole lu am solo la. soo gisee tey ci àddina li muy indi ci koom kenn xamul nu mu toll te loolu tey yàlla def na sénégalais maanaam ñun ñi nga xam ne ñooy ñoo fi nekk yàlla may sunu jeunesse maanaam xale yi dañu fiy bari lee macha allah ba pare itam am xarala. di boole Afrique ak yeneen dëkk yi ci àdduna bi yëpp. forum africain bu jëm ci wàllum industrie culturelle ak créative dina teg nag ak plateforme ci wàllum secteur créatif yi secteur privé ak institution publique yi ñu mën a daje te daal di lëkkaloo. loolu dina permettre ñi nga am opportunité euh, nga xam ne ni que ne peut-être que c'est de fonds euh, rencontrer également et aussi l'État du Sénégal mi ngi def mais que mu gën a def ci secteur yi et mu gën a que bu ñuy def par exemple mettre euh, des fonds euh, en place que ci fonds yooyu ñan la war a jëloon. ci fàttali rek industrie culturelle créative yi nag dina représenter lu toll ci trente millions ci ay emplois ci àdduna wërngal këpp. loolee nag nekk potentiel bu mag ci dëkk yi ci Afrique waaye nag faw rek ñu am lu jëm ci wàllum ndimbalu wàllum koppaax ci wàllum compétence ak wàllum xarale.